Je suis la présidente du mouvement Coloré et la coordonnatrice des Linguères de Mohamed Boun Abdallah Dionne ndogu bii nag li ko waral moom mu nekk koo xam ne solidarité daf ko soxal social soxal mu yàgg ko def looloo tax ñu initier lii di ci di wane ah son programme. Mhm. mu nekk koo xam ne li mu wax ci éducation wax ko ci santé. Mhm. wax ko ci mbay mi a ah, kii la réew mi soxla kii moo tax tey ñu ñëw fii di séddale ay ndogu bëgg ñépp jàppale ko mu doon doomu Sénégal joo xam ne dafa jub compétent. kii la réew mi soxla pour que ñu am une réconciliation entre la jeunesse et sa république kii la ñu soxla kii le réew mi ah bëgg ñu fas yéene au soir du 24 février fal ko au premier tour ñun mouvement Kolléré duñu ci des ginnaaw xëdd voté ndogu jubilé